chauffeur lii ci kanam oto bi tàng na. léegi la dëkk bi soriwul gaareel ñu wàcc dox. si bande d'arrêt d'urgence bi kenn mënul di si daw di si gaari oto di woote. panne wala accident rek ay tax ñu mën fa taxaw jaar si bande d'arrêt d'urgence dina yéex a liggéeyu oto secours yi.